asalaamaaleykum sama gars yi jàngu bi 135e édition bu pèlerinage Popenguine profité nañ ci ñaanaale jàmm ngir ndax jàmm gi jig Sénégal Ousmane sonk këram lañ ko tànc nit mun ta dugg nit mun ta génn am na ñu fa dem ñu gaze leen am na ñu fa dem ñu jàpp leen am na ñu fa dem ñu gaañ leen mer la indi ci xale yi ba kër Zator mbay Matar Ba uh, Serigne Mbaye Thiam ak ko kooku lu Coulibaly seen kër dañ leen a taal waaw. Ousmane Sonko demb ci guddi muy nettali fan la jaar ak gendarmerie te naan Antoine Diome waxul dëgg te musta wax dëgg su amee arme wala ngànnaay buñ fekk sama oto ñoom ñoo ko fa dugal waaw ki nga xam ne ni moom moo di Amadou Ba demoon na seeti sëñ Mountakha démb ngir sa 45 milliards yu ñu ne moom lañ bëgg def ci assainissement wu Touba waaw waaw Farba Ngom fëgg dënam daal ne le premier mooy verdict bi te ñoom pare nañ pour gatsa gatsa Euh, tribune yéene kaay di laaj waaw kan moo nekk gendarmerie bëgg a toroxal Ousmane Sonko ak kan mooy Anita bañ koy yónnee ay photo waa lii lan la demee